اللهم صل وسلم عليه حتى لا يبقى من الصلاة شيء وسلم عليه حتى لا يبقى من السلام شيء بوك جولي دي غورو جيغن ماغا نداو ني زيار نياب دلسي وار نانج سين اميزون اسماء الله الحسنى وصفات العليا te seen soppe seen xarit al imam mohammad jimlo di ci jiemantu ndax yow su ma dajee yow ngay may wax ne xam nga ma ne la xam nga benn réere yu bëree ya man yadai ilman qul alimta shay'an aw alimtu shay'an wa jahiltu ashyaa yow mi woote xam ben rek nga xam desee junne te junne yooyu mu ngi ci ñi lay déglu kon ñu ngi balu àq di siyaare kër këri diine yëpp ah, di ci jiital sama sering, sama sering. sama sëriñ yi sëriñ samay doomi sëriñ e, imaamul akbar Medina Baye ak i mbokkam góor ak jigéen mag ak ndaw bàyyiwuma maa ngi nuyu bëgg e, lépp lu moo xam ne ma alaaji Abdoulaye Niass e, jur na ko ba ca kër ma jëbal alhaaji Barham Niass bàyyi kan mu ngi wax ne wa bi jaahi wa athli wa walidi xaalil makaan kooku bàyyi ngi nuyu foofu bàyyam bon nag tuddaale na képp ko xam ne moo bi passé ñu ngi waxatoon ci benn lim bu gàtt mooy boo jógee ko ci Latif 129 eh, nga multiplier 129 rek 4 xam naa mu nga tolloog aqlu ah, ba wala mu nga tolloo xalbu ba yow yaay seet na ma la ko joxe woon misaal quatre xaraf yi moom nga multiplier ci cent vingt-neuf mu joxoon la cinq cent seize tey nag ñu ngi ci lëtif rek cent vingt-neuf ya cent vingt boo ca yokkee trente bi rek mooy cent soixante laa ilaha illallah boo ko delloo rek mu tolloog aqlu ba qalbu ba seize ba maa ngi ci seize bon tey cent soixante maanaam zéro nga zéro nga yokk ci seize muy cent soixante dafa am mbokkam jullit mu mu mos a mooy yii nag yàlla dimbali na bañ ci yàggee yëngu yàgg na mu ne ma man daan dama doon jàng dëkk sàngam ci réew araab yi lañ daje woon nag benn jàng ba pare ma yore fi jabar yore fi bugg a ñibbi te man daan amama bii ma ne ko ana xanaa demoo suratul waqaat mu ne ma lu fa ne ma ne ko man de menn mag mu joxoon joxoon na ma fa naanu jahalnaha taskiratan wa mataan lil muqwin naanu ñun yàlla jahalnaha def nañ ko taskiratan muy fàttaliku fàttaliku waaye wa mataan ak yóbbal lil muqwin ma ne ko taskira nag fu mu ne manoo dem ci kenn mënu ko déggee arab ba traduire la taskira tey te firéewu ko billet tey bon maa ngi bugg a joxe ku bugg a jaamam yàlla bu soxla billet <laughs> te lépp a ci tur yàlla yi walillahi al asmaul husna fad'uhu biha lépp a ci tur yàlla yow da ngaa soxla billet del def yaa latif te bul ko def yaa latif xam nga ibnu hajar loolu la wuuteeg yeneen latif yi bii naan al latif al latif Alatif ba muy cent sosant. soixante bi ngay njëkkee teg cent bi bu paree nga dem ca suratul waqia aaya juróom-ñaar fukk ak ñett ci yenn téere ndax waqia dañu wuti am ci waqia yoo xam la ci la boo doxee ba dajee quatre vingt dix bi am na lu ciy gars yi def ci asmaa'ul husnaa wa sifaatul ulyaa mag ma nag ne ma ah boobu maa ci àll di jàng ñu ñëw ñëw vacances mu ne ma ma ne ko ah mu ne maa ah, ñëw bi jafewu doon ko ah, yàlla yombal na ko mu ne ma ah, billet de képp ko xam aaya bi dootu jafe ci ma ne ko ma génnee sama hadiya man nag hadiya boobu moom dama ci xaw a tawee ci wàllu mag may jox njëriñ euh, mu ne ma naxanu ñun yàlla jaalnaaha taskiratan wa mataan lil muqwin mu ne ma li lay xamal ne aaya boobu tukki dong nga ko tax a jóg ma ne ko ah, mu ne ma taskira bi mooy bi gannaaw gi nag may yàlla woon ma ca leneen li ne lil muqwin yow mi jàng arab manoo ko firee lenn ci ko suuf lu way tukki ya bii kay tukki rek ko soxla mataan yóbbal ñiy tukki rek koy soxla kon da def allatif 169 def aaya bi 169 bu leen neexee nag da ngay jàng suratul waqaa ida waqaatil waqaa laysa a waqaatiha ba ci naanu jaal naa taskiratan wa mataa lil muqwin nga jaamu ko nga jaamoo ko yàlla 160 fois ji nga yii may joxe nag benn góor na maxoo ci ñi jël ci eh, téléphone bi ne ma yaa ngi jaamuloo nit ñi yàlla yaa ngi jàppaloo nit ñi ma ne ko loolu dee nag xawma mu ne bon nag yaa ngi fàttalil nit ñi ñu ne dañoo war di jàpp dañoo war di wéetal yàlla dañoo war di jokk yàlla ci turam yi kon nag boo ñëwee ba foofu nga def aaya boobu naanu ñun yàlla na taskiratan wa mataa lil muqwin te ngeen xam ne kenn du nekk yàlla nag ba dina tukki laysa ka misli shay waaye na xam nañ droit barkelu ci eh, alquran xam nañ droit barkelu ci turu yàlla yi mu ngoog yow tukki kooka nag ba ma ko waxee loolu nag fekk ndeysaan mu ngi fa yore doomam mu ngi may dégg xam naa ndax mu ngi dund mu ngi jiite jumaa ju mag temps yi sax ci Sénégal <laughs> léegi nag mu ne ma man dama ba la ma bi yàlla dana dem mu dem ci damay bañ a wax mu ne ma jàng ba pare biyee xaw maa te boobu fa ñetti ko ayna anta min hadihi al ay al karima fi naa waqia nahnu jaalnaha taskiratan wa mataan lil muqwin da nga ci am billet mu ne ma ah ma ne ko da nga am yóbbal mu ne ma ah mu ne ma te sa tukki da ma ne ko sa tukki dana neex da nga dem zaliman xaaniman kon lool de lañ doon jaamoo yàlla tey mbokki jullit yi yow mi bugg a tukki surtout tukki mu dagan moo xam ne da ngay dem pour teral sa bopp teral say waajur teral say soxna billet bu mu la téyeeti ci kaw suuf de di leen jàpp nag di julli di wéetal yàlla xam ne kenn rek mooy maye mooy yàlla moo nekk ca euh, sóora ba moo nekk ca jismu ba moo nekk ca nof moo nekk ca ajisaam ya moo nekk ca arwaax ya moo nekk ca xuqool ya moo nekk ca xulóol ya xulo xulóob ya moo nekk ca alquwaat at tabiiya moo nekk ca alquwaat alkulliya moo nekk ca quwaat laa jusiya ndax yàlla laa yatajazza doo wax doo ma wax kay ñu ngi leen a ziare ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi balu xàq ñëpp di ñaanal ñëpp tawfiq seen soppe seen xarit al imam Mouhamed Djibril wa salaamualeykum wa rahmatullah barhamu baun waraun ha mi mun faydu tiijaan jox ñu ñuy naan